uqal bukaaw jooy li leen ma Mustafa xutbu samaan seey bi dem na ban fee uqal bukaaw uqal bukaaw jooy leen ma Mustafa xutbu samaan seey bi dem na ban faa teewoon nag bu mu àggale jumaay Tuuba kenn faatu ndax lu jot ko booba ji jooy nañ ko ba su ko sañoon du fekk ren baayam ba ginnaay jooy na ko rijaalul xaybe jengoo di jooy di bi xal bi suufa jooy garab yee jooy nañ am bi ngir asamaan yi yuuxu nañ desem bi jant ba niis naa weeru jeen ci fekku yow ma faati di jooy xutbu samaan jigéen ña jàngoo góor ñu buur di daan ñeya di say ba dem ca teen yi daanu ñii tabbi àll ba far dem ba faat ñii ma watuñu lekkatuñ lil ayaatu neexoon keroog na faatu ànd ak Mustafa bu xaru jaa doon mur ja deeba ab bi ale taw bu taaru dem naa waañ wi bele sib di bale wey naa ab tey ma jooy seexam de jooy musta jooy xubay wem ab bi ale yeeg sey bi nax na tuuba ñibbi naa janaa ca baayam booba afi alaya adna kama juuy ba lu bari ci kër yi mu àndak lu bari ci kër yi ñoo xam ne daanaka ñi ci ñëpp ràññi nga leen ñoo xam ne daanaka ñi ci ñëpp ràññi nga leen ñu ñëw niñ ko daan baaxoo defee ñu ñëw niñ ko daan baaxoo defee saa su bis bu màgg bi agsee saa su bis bu màgg bi yegsee mu ànd ak njaboot gépp ñëw ci sa kanam mu ànd njaboot gépp ñëw ci sa kanam. yow mi nga xam ne yaa jëmmi yow mi nga xam ne yaa fi jëmmal Cheikh Mouhamadul Moustapha. jëmmal fii Cheikh Mouhamadul Lamine Bara. te moom mii mu nekk la ci njaboot gee. ñëw siyaar si. ñëw na tey si. di feddli si waale yi dox seen diggante lépp. muy kilifteef gi ak taalibe gi. muy kilifteef gi ak taalibe gi. mu ne ñu ngi sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax itam. ci bis bu màgg bii nga xam ne moo ñu fi dajale. ci bis bu màgg bii nga xam ne moo fi dajale. mooy bis bi ku tedd muy bis bi nga xam ne ku tedd ki ci la ñibbisee ci Touba gii di dëkkam bii. suñu borom nag defal la ci tawfiq. suñu borom defal la ci loolu tawfiq. mu tombé téeméeri at ci ren. mel ne bi muy tombé téeméeri at ci ren yow la dajeel. yàlla tegal tegal ko sa loxo. suñu borom jël centenaire Sëñ Touba boobu teg ko ci sa loxo. nga xam ne bis bu bàyyi woon xel la moom ku tedd. muy bis boo xam ne bu sëriñ bi bàyyi woon xel la. am lu mu dénkoon Cheikh Moustapha. ba am na lu mu dénkoon Cheikh Moustapha. dénkaan yu bari. muy dénkaan yu bari. mu matale lépp. mu matale lépp. moom Cheikh Mouhamadul Moustapha. moom Cheikh Mouhamadul Moustapha. ba defal sëriñ bi li mu bëggoon. ba defal sëriñ bi la mu bëggoon. andi ko ci dëkkam bu sell bi. andi ko ci dëkkam bu sell bii. la sëriñ bi bëggoon ci jëmmam mu defal ko ko. la bi bëggoon ci jëmmam mu defal ko ko. lam bëggoon ci njabootu boppam mu defal ko ko. lam bëggoon ci boppam mu defal ko ko. bëggoon ci dëkk bi mu defal ko ko. lim bëggoon ci dëkk bi it mu defal ko ko. lim bëggoon ci sunna si mu defal ko ko. lim bëggoon ci yoonu sunnatul xarra mu defal ko ko. lim bëggoon ci njabootu taalibe yëpp mu defal ko ko. lim bëggoon ci taalibe yëpp it mu defal ko ko. loolu nag suñ ko dee dox. mu ne loolu nag buñ ko dee dox. bu fekkee dafay dox ba agsi ci yow. ren yàlla dogal mu am téeméeri at. ab cër la boo xam ne suñ borom moo la ko jagleel. moo waral sëñ Moustapha am mbégte lool. moo mii am mbégte lool. ko woo wax ak moom. bi nga ko woo wax ak moom. ne ko màggal gi damaa bëggoon mu yaatu ren. ne ko màggal gi de damaa bëggoon mu yaatu tey ren. ndax Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe na ci ndigal. ndax Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe na ci ndigal. kenn ku ne xam ni mu ci taxawee. kenn ku nekk xam ni mu ci taxawee. ak ni mu ko itteelee. ak ni mu ko itteelee. ba def ci lim ci def lépp. ba def ci lim ci def lépp. nga woo ko moom mii am loo ko ci sant. nga woo ko moom mii am loo ko ci sant. njaboot yi benn la. ngir xam ne njaboot gi genn la. mu jox njaboot sëñ baar yëpp ndigal. mu daal di jox njaboot sëñ baar yëpp ndigal. ñëw ànd si ak njabootu Cheikh Moustapha gii di soxna Amina di njabootu soxna Aminta Lo muy sëñ Ousmane mii ak ñi ñu booleel ñëpp. ñu ànd liggéey bi liggéey ci. te muy liggéey bu yaatu. te muy liggéey bu yaatu. tàmbalee ko ci Touba. tàmbalee ko ci Touba. dem ba luga dem ba Louga. dem ba Njaareem. dem ba Diourbel. dem ba Ndakaaru. dem ba Ndakaaru. loolu muy liggéey boo xam ne. loolu muy liggéey boo xam ne. santoon na njaboot gi. sant moom sëñ Moustapha santoon na njaboot gi. ñu ànd si ko ak jëwriñ yi ci daa kër gi. ba nga amee ko ni ko bëggee. daana am loolu lu ko neex. nee na daana am lu ko neex de. waaye bi nga ko woo jox ko ndigal. waaye bi ko woo jox ko ndigal. sant ko liggéey bi sant ko liggéey bi. xelam gën naa dal xelam gën naa dal. yaakaaram gën naa dal yaakaaram gën naa dolliku. nga am sa kilifa. nga am sa kilifa. mu lay sant dafay am lu yëg-yëg lay def ci moom. kon nee na sëriñ Moussa ngi sant bu baax. di sant ci noonu yi nga xamee doxee la nañ ko nii. ñu ngi seede bi ñu ñëwee itam fii ci ci kër Cheikh Moustapha. ne bi ñu fii ci kër Cheikh Moustapha Karim. dañoo ko njabootu sëñ Baara. dañoo jël lépp ñoom delloowaat ko njabootu sëñ Baara jiite leen ci lépp. nga xam ne commission yi ñu defoon yëpp. daanaka njabootu Cheikh Mouhamadou Baara ñoo ko jiite. ngir jàpp ne ñoom ñooy jëwriñ yi. bi ñu ñëwee it ñoom loolu lañ jàpp loolu moom mooy tànk yi. kon nee na loolu yi mooy tànk yi. ziar si. ziar si. feddli. si. ak ñaanal la. ak ñaanal la. yàlla bàyyi la fi. yàlla bàyyi la fi. nga yàgg fi lool. bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. nee na li ci des da koy bàyyee ak sëñ Moudou Baara. mu àggale ko. di feddliwaale itam taalibeeg njaboot gi mu àndal yëpp. di feddli si waale taalibeeg njaboot gi mu àndal yépp ci bis bu màgg nga xam ne moom lañ dëgmal. muy bis bi ku tedd ki ñibbisi woon ci njabootam cib dëkkam. muy bis bi nga xam ne ku tedd ki ci la ñibbisi woon nag ci njabootam gi fi dëkkam. Euh, Serigne Touba defal la ci ay ndam yu bari. borom tubaa defal la ci ay ndam yu bari. ndax euh, commission yi ñu ndax commission yi nga xam ne ñoom lañ dénkoon liggéey bi. bari na ay xalaat yuñ ñu ci doon xalaat. bari woon na lool ay xalaat yu ñu ci doon xalaat. ak i nisër. fan lañ koy tàmbalee. ak fan lañ koy tàmbalee. ak ban bis lañ koy tàmbalee. ak ban bis lañ koy war a tàmbali. lu nekk waxtaan nañ ci. lu nekk waxtaan nañ ci. waaye ci sunu xalaati bopp yi ñu waaye ci sunu xalaati bopp yi ñu tëraloon. mu mel ne ku baax ki moo weddi li ci ëpp. mu mel ne ku baax ki moo weddil boppam lu ci ëpp. ndax moo yor mbiram. te di ko doxale nam ko bëggee. ndam yi la ci sëñ Touba defal. ndam yi la ci sëñ Touba defal. bokk na ci Touba gii lañ ko tàmbale bokk na ci Touba lañ ko tàmbalee. liñ nisaroon du loolu. te lañ nisaroon du loolu. loolu nag ci ngay daal am mubaarakul ibtidaa. loolu nag ci lañ daal di xam ne am nañ mubaarakul ibtidaa yi xam ne boroom mu leen di jiiteel. ci fii lañ tëjewaat itam. te yàlla dogalaat ci fii la ñuy tëjewaat mbir mi. loolu di junj may muunul intihaa. kon loolu di junj mbir mi may muunul intihaa lañ ko tàmbali woon. le lañ ko tàmbali woon. boo ko amee yoon jox la jëy sa sin le boobu boo ko amee ñaari yoon mu jox la jëy sa sin ci la sëriñ Touba tàmbali woon liggéeyam la sëriñ Touba tàmbali woon bi le 26 la le 26 ci la gi ci suba ga lañ suba gañ koy tëj le 27 le 27 la sëriñ bi tëjoon ab liggéeyam kon lépp tàbbi na ci biir nee na bi ko commission bi yónnee ci Cheikh Moustapha Saleh sëriñ bi yónni ko ci sëñ Moustapha Saleh ba mu waxtaanee moom ba noppi nee na la ko yónni woon daf ne ma man de fan yii yëpp man de fan yii yëpp sama xel daa nekkoon ci mu ne xelam dafa nekkoon ci njabootu sëñ Touba yi ko fi wuutu juróomi xalifaam yi njabootu borom Touba gi ko fi wuutu juróomi xalifaam yi kenn ku ne ñu wutal la bis ci liggéey bi kenn ku nekk ñu wutal la bis ci liggéey bii ah Cheikh moom am na bis. mu ne ko ah Cheikh Mouhamadoul Moustapha de am na bis. ndax bis bi ñuy ubbee fii ci Touba moom lañ ko jagleel. nee na jamono yi koy wax xamul ne juróomi fan lañ lañ programmé. ma ne nag am na yeneen bis yu ca mu ne ko nag am na yeneen bis yu topp ci bis boobu yi. mu ne yan la. mu ne ko le 15 Louga lañ koy defee. le 20 Njaaréem. le 21 ca Ndakaaru. Euh, buñ màggalee ba ca suba gi itam di le ba ca suba ga di le 27 ci Touba. muy juróomi bis yi nga xam ne moom lañ programmé. mu ne loolu kon tawfiix la juróomi doomi sañ Touba yi fi nekkoon xalifa ñoom ñoo ko moom. nañ tàmbalee ci ki fi jiitu. mu ne kon nañ ko tàmbalee ci ki fi jiitu woon nag. bis bu jëkk bi mu moom ko noonu yéen ko programmé. ba ci bis bu mujj ba. ñu jox ko ki fi mujj muy Serigne Saliou Mbacké li ngeen nisaroon a def waaye li ngeen nisaroon a def ci bis yooyu. bu ci dara soppiku. waaye bis ne nañ ko jox waaye bis bu ne nañ ko cërale tudde ko ka jiitu. mu mel ne kon mbirum liggéey bii ren Cheikh Mouhamadou Moustapha moom lañ ko ubbee ci Touba. Mouhamadul Fa ba ca topp ci Louga Cheikh Mouhamadul Fadil lañ ko jagleel màggal ko ca. ba ca topp ci Njaareem. ba ca topp ci Njaareem. Cheikh Abdoulaye lañ ko tuddee màggal ko ca. te moom Cheikh Abdoul Ahad foofee la gane jamono kon bi sama. bu ñeenteel ba di Cheikh Abdoul Khadir. bu ñeenteel ba bi bu Cheikh Khadir. ca Masalikul Jinaan ca Ndakaaru. ku ko jox jumaa yi wàcc nga. yaakaar na ne Cheikh Abdoul Khadir mbiram ku ko ba ca di Cheikh Saliou. ba ca topp di moom mooy tëj màggal gi bu ñu màggalee bi suba sa boobu lay doon. waaye it moo tëj xilaaf ak doomi Serigne Touba loolu lépp sëñ Touba defal na ko. mu ne loolu lépp nag Cheikh Serigne Ahmadul Muxtaar Serigne Touba la ko defal. te loolu mel ne ñoom bokkul woon lañ xalaatoon waaye sëñ Touba jiit seen kanam di leen rëddal. loolee xam ne kon sëñ Touba dugg loxoom a ngi ci biir. sëñ Touba du séddale mukk. sëñ Touba moom du dul séddale mukk. te cërub Cheikh Ibra génn ci. te cërul Cheikh Ibra Cheikh Ibra foog ab cëram génn ci fes fang. le 19 ci njaareem juillet. 19 juillet la sëñ Touba le 19 juillet ci la sëñ Touba ñibbi woon Touba. mu tombee ren ñu jàllale ko maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine. loolu it tàbbi ci liggéey bi. loolu it daal di tàbbeeti ci liggéey bi. te bokkul woon ca programme ba. ñoom gis nañ ne sëñ Touba moo jiitu di leen conduire. loolu nag yow la jox ndam li. xam nañ ne loolu sa mbira sa ndam la. Cheikh Moustapha sa wayjuram moo ubbi woon. ndax Cheikh Moustapha al Karim moo ubbi woon. téeméeri at yi nga xam ne mooy door a jeex ne suba ñu di ko màggal Cheikh Moustapha ko ubbi woon mat googee mu mat nag mu téeméeri at yi yow it lañ ko cërale yaa ko war a tëj yaa ko war a màggal yaa ko war a dundal yow la ko Cheikh Moustapha jagleel ci loolu nuy ñaan nag nga yàgg fi lool ci darajey Cheikh Mouhamadul Amin ba fi nga bëgg a liggéey bi wala fële ko sëñ Tuubaa yóbbuloo mu tam dimbale la ci sago ba nga yóbbu ko fa ci dal ak sago ak ndam yu bare bare yu yaatu di yokk saa su ne yoo xam ne adduna bépp danañ teg seen bët dikku sëriñ bi nag sëriñ bi lu nuru lu jafe la ci zahir lu nuru lu jafe la ci zahir waaye lu yomb la ci pas-pas. ndax Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi ngi ko dénkoon. ndax Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi ngi ko dénkoon. ba baayam da koo duy ci pas-pas ba dara xajatul ci moom. ba lu ñëwagul te sëñ bi wax ko. ba lu ñëwagul te sëñ bi wax ko. ci la ëpp yàqin ci li teew. ci la sax ci li teew. wóoroon na ko ni dana andi moom xamoon na ne dana andi sëriñ bi. def na ko it na ko ko sëriñ bi digalee. ginnaaw sëriñ bi ginnaaw sëriñ bi. li ko tàmbalee ci moom. li ko tàmbalee ci moom. ak ñi topp ci moom. ak ñi topp ci moom. wane nañ ak njàmbaar goo xam ne. wane njàmbaar goo ak fit woo xam ne. ak dogu ci liggéeyal sëñ Touba ba andi tey yoon wi dëkk bi fii mu toll nii. li gën a rëy ci yoonu murit. li gën a rëy ci yoonu murit. ñu di ko lim. ñu di ko lim. lépp gannaaw sëriñ bi la. lépp gannaaw sëriñ bi la. te njàmbaaru gi mu loolee njàmbaaru ñi mu fi bàyyi la. bis bi gën a rëy ci Sénégal. bi nga xam ni moo gën a rëy ci Sénégal ci bisi diine yi. mooy màggal tubaa safar. te loolu yi gannaaw sëriñ bi lañ dajale nit ñi. dëkkub diine bi gën a ci Sénégal. dëkkub diine tey bi gën a rëy ci Sénégal. mooy Touba. te loolu yi gannaaw sëriñ bi lañ ko liggéey. jumaa ji gën a rëy ci jumaa yi. jumaa ji gën a rëy ci jumaa yi. Touba la nekk mooy jumaay Touba. te loolu sëñ bi da ko batale woon bàyyi fi. naal yi gën a rëy nag. ci lislaam ci réew mi. ndegam yi gën a rëy yooyu yëpp ak njabootam ñoo ko taxawu. ci seen ci biir centenaire boobu yi loolu ak junj la ci seenu njàmbaar ci biir centenaire boobu yi. muy ak dogu. ak seenu gëm sëñ Touba. ak seenu gëm sëñ Touba. loolee nag fa ñu nekkoon. mu ne loolu yi nag fa nekkoon. di téyeel liggéey bi sëñ bi. di téyeel liggéey bi sëriñ bi. muy dox muy dox. di dox. ba agsi ci jamono ji. ba macha allah mu agsi ci jamono ji. ki jiite yoon wi. ki jiite yoon wi. ràññeeku lool. fa tabaarakallaahu lool. ci Pastef. ci Pastef. taalibe ak gëm sëñ Touba. akuk dogu. yéen ñi koy wétali ñëpp it. yéen ñi koy wétali ñëpp it. loolu yi moo nekk ci yéen. muy mbir mu dal xel nag. ndaw ñi. kon ndaw ñi. war am luñ ci jàngee. war a mooy xool fi ngeen ñu joxoñ. mooy xool jublu fa rek. lu dul li ngeen bëgg. lu dul li ngeen bëgg. du wan ko gannaaw du ko gannaaw rek. seen yitte yëpp ndax seen yitte yëpp Serigne Touba rek la. seenum xëy seenum ngont. bu nu amee nag euh, fulla. bu amee fulla. dañuy jàpp dañuy téye ci yéen jàpp ci yéen bu dëgër. di jëfee seen ndigal. di jëfee seen i ndigal. moytu ngeen seen ci lu leen gënal. tey moytu ngeen seen ci lu leen gënalul. mi ngi sant bu baax. sëñ Moustapha jëwriñu Cheikh Mawone Baara mi ngi sant bu baax sëriñ bi. gën a feddali taalibe gi. di gën a feddali yaakaaram. di la xamal ne itam. njaboot gee jiite ci kuy mbind booy boo nga dalal sa xel ci ñoom wallahi teg nañ ko fi ñu ko war a teg jàppe nañ ko it niñ ko war a jàppee te lu yëngu rëy rëy moom rek la ñuy déglu kon sëriñ bi na nga dalal sa xel ci moom ak ñim jaboote yëpp moom ñoom jaboot gi nee na jaboote nanu téye nanu yiir nanu yërëm nanu te it mi ngi nuy gindi ci liñ war a ne loolu kon foofa moom na ci sa xel dal nu la koy séeréer bu wóor a wóor sëriñ bi ne mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp te nuyoo bi ànd ak i ngërëm ak i cant li ngeen wax lépp dégg na ko nee na li ngeen wax lépp dégg na ko li gis na ko li ngeen jëfit gis na ko waaye loolu mooy li nga xam ne. waaye loolu mooy li nga xam ne. moom ngeen fi fekk. moom ngeen fi fekk. te noonu ngeen war mel. te noonu yi ngeen mel. nee noonu rek ngeen war a mel. ndax ay góor ngeen. ndax ay góor ngeen. te jaay seen bopp. te jaay seen bopp. Serigne Touba mi nga xam ne. nga xam ne. moo am njëg. moo am njëg. tey jii ñu tey jii ne. ak ëllëg gën ak bu ëllëgee ñu gën jëm. ngeen jox ko seen bopp. ngeen jox ko seen bopp. te Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne. as gor. as gor. bu jaayee ngorom. bu jaayee ngorom. moomatul boppam. moomatul kam ko jaay moo ko moom. jaay moo ko moom. te ñooy julli jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam seen bopp. te ñoo ngi nga xam ne ñoo jaayoon rasulullahi seen bopp. nun mor yi noonu lañ jaayee suñu bopp sëñ Touba. nun mor yi noonu rek la noonu lañ jaayee suñu bopp borom Touba. pas-pas bii ngeen fi indi tey ak li ngeen fi wax. pas-pas bii ngeen indi tey ak li ngeen fi wax. mënta ñàkk. mënta ñàkk. ndax. ndaxte. bis bii ñuy wax téeméeri at. bis bi ñuy wax téeméeri at. keroog ba mu xewee. keroog ba mu xawee. ba Cheikh Moustapha yëgalee Serigne Baara li xew. ba Cheikh Moustapha yëgalee Serigne Baara rakkam jooji li xew. dafa daal jël sa jàpp. yeesal ak jaayanteem digganteem ak Cheikh Moustapha. ca saasa daal di yeesal ak jaayanteem diggam ak Cheikh Moustapha al nag moo law ba agsi ci yéen mu ne loolee moo ba agsi ci yéen fii ngeen ne. mënu leen lenn lu dul lii ngeen def. mënu leen lenn lu dul lii ngeen def. ngir. ngir. ki ko jox. ki ko jox. lu ko waay jox. lu ko waay jox. dootu la rëcc. dootu la te mooy xadimal Moustapha. te mooy xadimal Moustapha sallallahu alayhi na ngeen xam ne. moom ma nga xam ne. nangeen ngeen xam ne. xam ne. du ngeen ñaari nit. du ngeen ñaari nit. benn nit rek ngeen. nee na benn nit rek ngeen. ci pas-pasu. ci pas-pasu. soxna Aminata soxna Aminata ngir. ngir. bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor. bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor. fi sëriñ bi. fi sëriñ bi. da ko wax ne ko. da ko wax ne ko. dama bëgg jaayante gi may jaayante yow. dama bëgg jaayante gii may jaayante yow. bu ëllëg gën jëm. ëllëg gënu jëm. ma ne fa yow. ma ne fa yow. ndax mën naa am. ndax loolu mën naa am. mu ne ko man naa am mu ne ko mën naa am. mu ne ko damaa bëgg am ak yow. mu ne ko damaa bëgg am ak yow. doom joo xam ne. doom joo xam ne. dañ ciy natt doom yi. dañ ciy natt doom yi. waaye moom deesu ko natt ci kenn. ndax mën naa am. ndax mën na am. mu ne ko mën naa am. kon na ngeen xam ne. kon na ngeen xam ne. ay fàggukat. ay fàggukat. ñoo daje ku mën a defar. ñoo daje ku mën a defar. kuy defaree. tey defaree. mu defar leen. mu defar leen. bis bi nuy magal nee bis bii nuy màggal. bis la boo xam ne. bis la boo xam ne. mbégteem sëriñ Touba. mbégteem borom Touba. waaye naqaru Muridiya. waaye naqaru Muridiya. ndax gaaw ba mujjee génn. ndax gaaw bi mu mujjee génn. li mu wax. la mu wax. dafa wax sëriñ Afiya Mbacke. dafa wax sëriñ Afiya Mbakke. ne ko Afiya. ne ko Afiya. mu ne ko Mbakke mu ne ko Mbakke. mu ne ko sama borom wàcce na ma ci lépp lu mu ne ko sama borom wàcce na ma ci lépp lu ma doon def. wàcce na ma ci juróom. wàcce na ma ci julli juróom. wàcc na ma ci koor. wàcc na ma ci koor. lim mboolem yi jaamoo yàlla. lim mboolem yi yàlla. mu ne ko matal naa ci suñu borom wàcc na ma ca. banaa ko yéen. banaa ko yéen. banaa leen ak seen weeru koor. banaa leen ak seen weeru koor. fanweer. fanweer. mbaa taafeer ci ko wér. ba muy tej buntu ba. ba muy tëj buntu ba. mu wax leen mbooloo mi ne leen. mu ne wax leen mbooloo mi ne leen. duutuma wax ak ñoom. duutuma wax ak ñoom. muy gaaw. muy gaaw. ci takkusaan. ci takkusaan. dibeer. dibeer. altine. altine. talaata Cheikh Moustapha bàyyi ko. talaata la Cheikh Moustapha bàyyi ko Njàmbur. ñaaxeen. jaar gaawaan fa sëñ gaawaan. jaar gaawaan fa taala anhu. daal koy. digoon ko kendal. digoon ko kendal. ba mu yegsee ba nuyoo ba noppi. ba mu yegsee ba mu nuyoo moom ba noppi. mu ne ko dama ko fàtte woon kat. mu ne ko dama fàtte woon de. waaye sëriñ bi waxoon waxoon ne ma. waaye sëriñ bi dama ne woon. fu ma tey mën a fekk. fu la tey mën a fekk. na ma naa ñu wuyu naa ñu wuyu si ko Jurbel. sëñ Gaawaan yëkkati baagam ko naroon a ganale. sëñ Gaawaan yëkkati baagam ko naroon a ganale. jox ko mu indaale ko. jox ko mu indaale ko. ba mu yegsee. ba mu yegsee. ba laaj fu sëñ bi ne. ba laaj fu sëriñ bi ne. Maxtaar si la wax ko. Maxtaar si la wax ko ko. mu laaj ko. mu laaj ko. kañ nga gëj a toog moom. kañ nga gëj a toog ak moom. mu ne ko barki ba léegi waxu ak moom tooguma ak mu ne bëkk barki démb ba léegi waxunu toogunu. mu ne ko dégg ab yëngoom fenn. mu ne ko ndax dégg ak yëngoom fenn. mu ne ko déedéet. mu ne ko déedéet. mu të mu dëkk ci bunt ba. ba mu dëkkee ci buntu ba. laaj ku ko tëj. laaj ana ku ko tëj. sëñ Maxtaar ne ko sëñ bee ko tëjal boppam. sëñ Maxtaar ne ko borom bi moo ko tëjal boppam. mu ne ko ah kooku de fu duma ko tijji. daj aw seng. daal di daj aw seng. jaar ca jaar ca. ba agsi ci baraag bi ba agsi ci baraag bi. jàng lim yi ko Serigne Touba joxoon. jàng lim yu ko Serigne Touba joxoon. kon waxtu ma tollatee fii. wax ne fii. na nga jàng lim yii. na nga may wàññi. loolee moo may wàññi. Cheikh Moussa jàng lim yëpp. Cheikh Mamadou Moustapha jàng lim yëpp. ba mu yegg. borom bi tontuwu ko. mu door a àgg moom nuyoo. yetti yoon yetti yoon sëriñ bi faywut mu soog a moom. mu door a ca moom. fekk kayit tekki dënd ba. fekk kayit wu mu tekki dënd ba. mu jàng ko. mu jàng ko. lem ko dugal ci jibaam. lem ko dugal ci jibaam. delluwaat ci kër ga. delluwaat ci kër ga. nit ñëpp ñëw di ko siyaare ndax. nit ñëpp ñëw di siyaare si am Moustapha. ndax ñetti fan yi am te ndax ñetti fan yi ñu am te ñu bari aguñ ci sëñ bi. soppiwul ci aw dara. soppiwul ci aw meloom dara. soppiwul ci aw doxalinam mi ngi dara. moom Cheikh Moustapha soppiwul ci am maslaam dara loolu na la ko waral. loolee la ko waral. keroog ba mu gënee àdduna. kere ba mu gënee àdduna. ñu di ko tudd. ñu di ko tudd. sëriñ bi yebal sëñ Massamba Faati. sëriñ bi yebal sëñ Massamba Faati. moo topp sëñ Mbàkke bu sañu bokk ndey. kookee moo topp sëñ Mbàkke bu sañu bokk ndey ak baay. sëñ bi bind bataaxel. sëñ bi bind bataaxel. bind ca Mouhamadul Moustapha. bind ca Mouhamadul Moustapha. demal jox ko Cerno. ne ko demal nga jox ko Cerno. ba ba mu ñëwee jox ko Cerno. ba mu ñëwee ba jox ko Cerno. radiyallaahu taala anhu wa barakaati maam Cerno jàng këyit wa ca kaw. ne dal ne li woon ci suba. li woon ci suba. ku ko fekkiwul. ku ko fekkiwul. bu ko kenn déggaat. muy turu Mouhamadul Moustapha. sëriñ bi wax ne. sëriñ bi daal ne. rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ma wax ne ma. rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne ko. boo ma ko féetalee. boo ma féetalee gan gii de. li fi li li nga tële ci sa bopp lépp. li nga tële ci sa bopp lépp. moo la koy defal noonu la amee noonu la amee. bismillah bismillah. Cheikh Moustapha. ndax Cheikh Moustapha. sa borom mi ko bind. sunu borom mi nga xam ne moo ko bind. moo ko bind ci ndam. moo moo ko bind ci ndam. yàlla ko bind muy sunu borom moo ko bind def ko muy mu nitu ndam. di am ndam saa su ne. loolu nag. loolu nag. mooy dox. mooy dox. ndax moo indi sëriñ bi Touba. ndax moo moom yi moo indi sëriñ bi Touba gi. moo ko te booba moom rek moo ko ko mënal. ay rakkam. ay rakkam. topp ci moom déggal ko. topp ci moom déggal ko lool. kenn ku ne ci ñoom. kenn ku nekk ci ñoom. xam. xam bu baax. la la sëñ Tuubaa defal. la la sëñ Tuubaa defal. te da nga cee jot. te xam na da nga cee jot. kenn fëkkastalu ko. kenn fëkkastalu ko. kenn yàkkamtiwu ko. kenn wu ko. ba kenn ku ne. ba kenn ku ne. lay sëb cër. lay sëb ci sëñ Tuubaa. ci borom Tuubaa. nga mën koo wane. nga mën koo wone. wone nga ko ba ñëpp teg seen bët. nga ko ba ñëpp teg seen bët. kon li des. kon li des. mooy njaboot gi. mooy njaboot gi. xam. njaboot gi xam. li am. lii am. ak ki ko jox. ak ki ko jox. te fee ngi ne ci li mu bëgg. te li fee ñi gi ci limu bëgg. duñ ko ñàkk. duñ ko ñàkk mukk laa yu xayru. li ngor itam. li ngor itam. mooy kenn ku bëgg yow yoonu murid. kenn ku bëgg a yor yëpp yoonu murit ñun ñëpp nañ fexe ba. ñun ñëpp nañ àndandoo fexe ba. ba ka koy ka koy def. ba ka koy def. jaar ci. du jaare ci ñii. ak ku mën a doon nag te nga ak ku mën a doon sax nag te nga yaakaar sëñ Tuba waaw. kii fi ne di sëñ Muntaxa. nee na kii fi ne di sëñ Muntaxa. jiite yoon wi. jiite yoon wi. pas-pasam ci sëñ Tuba. pas-pasam ci sëñ Tuba. ak yéeneem. ak yéeneem. ak gëmam. ak gëmam sëñ Touba. ak farloom. ak farloom. ndax yi ngeen doon lim ne am na ci lu ne yoonu murit am na ko. ndax yi ngeen doon lim léegi ci ne yoonu murit am na ko. université maa ngi ni kenn ma kuur yoon murit. nañ ce dolli université bii nga xam ne. yoonu murit dong ko te pas-pas su sëñ Muntaxa doo nga tax mu ne rek a ko waral daa bokk ci sëñ Tuubaa bindoon ne mënu koo ñàkk daa bokkoon ci wasiye yi sëñ Tuubaa bindoon ne mënu koo ñàkk wax na ko sëñ Mbàkke Buso waxoon na ko sëñ Mbàkke Buso ba doon ko wut loo ay ba doon ko wut loo ay kon loolu kon loolee it mënut ñàkk la mënu woon a ñàkk te amal na ko te Cheikh Muntaxal Bachir moo ko amal leneen lu mu doon itam mu ne leneen lu mu doon itam te ngeen yéene ko te ba koo defal sëñ te ngeen ko ba ngeen ko man ni ngeen ko bëggee da amiin sëñ Amadou. yal na la fi yàlla yàggal. yal na la fi yàlla yàggal lool. macha allah. tabarakallah te musal la ci mépp ndog mu mën a doon. yal na la yàlla musal ci mépp ndog. yaa ngi njaboot gépp nag. yaa ngi njaboot gi nga àndal yëpp. sunu xol sedd na. sunu xol sedd na. sunu xel dal na. sunu xel dal na. sëriñ Moustapha. Cheikh Moustapha. wàccoo yoon wa sa waajur yi jaaroon. nee na wàccoo yoon wa sa waajur yi jaaroon. ñoo ko ñoo ko sa waajur yi jiitu woon kër sëñ Baara. muy sa yi nga xam ne ñoo jiite woon kër sañ Baara. ak seen rakk yi toppoon ci ñoom. ak seen rakk yi toppoon ci moom nit. nii nga def rek. nii nga def. lañ daan def rek lañ daan def macha allah. yoon waa ngi nii. kon yoon waa ngi nii. aw nga ci. aw nga ci. yaag say rak. yaag say ak say taalibe. ak say taalibe. yàlla bu leen dara dog. yàlla bu leen dara yàlla ngeen àgg ni ngeen ko bëgg yàlla na ngeen àgg ni ngeen ko bëgg néew yoon Cheikh Ahmadou Moustapha ci barke Cheikh Mouhamadoul Moustapha barke Cheikh Ahmadou Bamba barke Cheikh Ahmadou Bamba mi nu yaakaar xam ne ak jëmmi sëñ Baara ji nga xam ne sëñ Touba moo wax sëñ Mouhamadou Moustapha ne ko borom Touba moo wax Cheikh Moustapha ne ko defal sëriñ sa doomi ndey defal sëriñ Bassirou dafay jaar si rek Baara mii dafay jaar si rek jërëjëf ci qalbu kaaw doy leen ma Moustapha xutbu samaan seey bi dem na banu fee ukal bu xari wal bu kaaw jële ma mustafa xutbu samaan seey bi dem na banu faaw teewoo nag bu àggale jumaa yi Tuuba te nun faatu ndax lu jot ko boobu teewoon mu àggale jumaa yi Tuuba te nun faatu ndax lu jot ko boobu jumaa ji jooy nañ ko ba ser baatam su ko sañoon du fekk ren baayam ba ginnaay jooy na ko rijaalul xaybe jengoo di jooy di jooy ba suuf si xal bi suufa ngi jooy garab yee jooy nañ am bi ngir asamaan yi yuuxu nañ desem bi jant ba niis naa weeru feeñ ci fettulaan yow ma faati di jooy xubbu samaan jigéen ña jengoo góor ñi di daanu ñeñe di tay ba dem ca teen yi daanu ñii tabbi àll ba bar dem ba faatu ñii ma wati yu lekkati lil ayaatu neexoon keroog na faatu ànd ak Mustafa bu xaru jaadoon mu ja deema ab ci àll yeeg taw bu taaru dem naa waaj ñi belee jënd balla wey naa ak ci tey ma jooy seexam de jooy musta jooy xubay wëm ak ci àll sey bi nax na tuuba ñibbi naa janaa ca baayam booba ak ci àll ya aduna kamaa juuy ñëw leen di dengoo abadan tanaa ati alee ful ku ma kaamil yaa bañ nañ leen miraas bi siiw na ati alee kay ku mag de jooy naa ngir àddina kay ka jooli booy na ati alee góor gu way ke dem mel na man di jooy mbir am naa ati alee góor gu way way man nanal ne man jooy bi am naa